imam ma ngay def nii damay jàng dafa am exercice yu may def fi la fekk yaa ngi exercice ah exercice yi bëri ah. rek ñu ñuy def waaw maman naam est que ren dama war a woor koor gi yëpp ah pourquoi pas ah damaa gis ne nga man aw ma habitude di woor gi yëpp ay 15 jours wala 10 jours laa daan woor loolu sa maam moo la ci daan bàyyi sa moo la ci daan bàyyi sama yaay moom day yàq xale bàyyi wax boobu noonu yow lu tax su la yeewee xëdd doo jóg lii laay waxati man maa la wax damaa woor bay jóg xëdd tafsir quraan ci biir day fees baytul atfal andi Pastef ramadan a ngi bay ñoom xanaa nekkuñu ci koor yow Abdallah yow lu ne yaa ko sànni yow yaa ngi may provoqué baax na yow dama wax ak yow ñi ñu doon moom fee laay waxal zahraanat wax na la dëgg nag am dara nit du loo gis rek yaay wax nit du loo gis rek yaay a ngi baytul atfaal ramadaan a ngi yow nag si la yeewee xëdd laay waxati man maa la wax damaa wóor bay jóg xëdd doo mën lee defoon koor paase nag loolu yooyu defaat xaj lan laa defoon koor paase bàyyil di ma tuumaal ah wax ma loo moom day wàññi sa yoonu koor donte ni yàqul sa koor waaye day wàññi si nga xamante ni mooy sa yoolu koor woor di taxawaalu wala di dàq koor day wàññi sa yoolu koor. allamal quraan xalaqal insaana allamahul bayaan ash-shamsu wal qamaru bi husbaan wan najmu wash shajaru yasjudaan. maaleykum salaam. waaw maa ko moom kay lan la woon. maam li leen doon yàlla tëdd avant koor ñoom duñ ko def bu koor jeexee dañu ko. ñu continué dañu waaw xamuñu ñoom ñaar bu jotee wuñ dara dara dara koor jaamu yàlla la. wallaahi jaamu yàlla. mais aka yàlla aka mënoon nag moment bi ngay dem ci saison yàlla jël fa sa bakkan nga yem fa. tëjaale sa saison yow. waaw tëjaale sa saison yem fa. waaw tata mën naa ñëw ñu waxtaan. waxtaan. Abdoulaye yaa doon yow lan nga war a waxtaan. ah da ngaa ne mu sa yaay. waaw wala koor bi moo la jàppul ma danga maa wéetal sax te fan yi yëpp aw ma ku may waxal ndeysaan Seyda Zeynab Fall jigéen bu baax la jigéen bu am diine jigéen bu jàmbaar waaye doomu ba wax naa la tey jàngiwul yow Zahra est-ce que maman ak suñ fi nekkoon yenn la ba heure bi tey maman moo lax nekku mama démb si fajar mu ànd ak papa bi ñu jullee ba pare xanaa kon julli woo fajar. Zahra waaye yow yow est-ce que yaa ngi fi gis nga Xadija lu mu def. lan la def. mu dem yàq saagam nga bàyyi ko mu jël sa saag yéen ñàkk fayda. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون عليكم السلام ورحمة الله papa dafa amoon loo xam ne il faut nga leeral ma ko dama si doon weerante ak suñu benn waa classe hmm. Ramadan a ngi baytul atfal Ah, waaye yow li nga doon def sànq julli la wala entraînement. papa sànq dama doon julli. yow ni ngay jullee. Ramadan a ngi baytul atfal